Medicine euh, ñu ngi am mbégte di dalal Moustapha Diémé euh, nekk chanteur religieux euh, Moustapha ñu bàyyi la nga nuyoonte ñi lay seetaan. Mhm, asalaamaaleykum. Mhm. maa ngi nuyu mbokk taalibe yeeg di jàmm yeeg ñi seetaan télé maa leen di siyaar wér wér wér. di leen siyaar di leen dal jàmm. Mhm. di wax ne bisimilah alhamdulilah rabbil alamin d'accord Moustapha yow euh, yaa ngi nekk chanteur religieux. Ah. ñu gën la xam euh, ci waa kër Serigne Touba. Ah. est-ce que mën nga ñëwaat tuuti ci say début lan moo la dugal d'abord ci ci way boobu. Ah, way moom li ma si dugal mooy fu ma yaroo. Mhm. muy Darou Bayra. Mhm. nekk nekk si ginnaaw Touba. Mhm. samay morom ñoo fa nekk ñun ñëpp ay tuddang lañ waaye lenn képp la ñuy dund muy la ilaha illallah rasulullah ma ma ci loolu ba tey jii. mu mën a taxaw pour génnaar boobu. pour ma dafay clip pour nit ñi xam kan mooy Moustapha Diémé. waaw euh, léegi bi nga bi nga commencé ak seen morom naka ngeen doon dem da doon dem ci koñ yi di way wala ci biir kër yi wala naka la doon demee exactement bi nga nekkee xale. waaw ban année nga amoon déjà. boobu noonu mhm. laa tàmbali gën a fes daal si mbir yi 92 laa tàmbali fes. Mhm. waaw parce que man maa ngi judd fin 82. kon boobu man ay dix ans huit ans yooyu laay war a am affaire yi. Mhm. parce mais daal ñun foofu noonu ñi fa nekkul ñëpp li ñuy dund mooy. Mhm. Baye Fall ma muy laa ilaaha illallaah Muhammadu Rasulullah mhm. nga xam ne nii dëkk sëñ Modou Moustapha Fall la. doomu sëñ Modou Amine Fall. waaw moom moo sañ ci dëkk nga xam ne nii ñoom ñëpp loolu la ñuy dund amuñu leneen amul leneen daal yow looy dund moom la moom la ñuy sàmmee moom la ñuy defee lépp. waaw waaw waaw loolu moom ci gën a dugal nag. waaw man waaw léegi nag bi ma ñibbisee Dakar tamit. waaw ci la ko pada ini. ba tey jii nii. d'accord bi nga ñëwee Dakar ni nga kan nekkat ci tamit ci ci lan ngay nekk di produire ci wala ci lan. waaw dama dem wala ñu wax ma programme ma dem ko ñëwaat. ak sama liggéey tamit. waaw. d'accord yow bi commencé ngi ci ñaata album. maa ngi sama troisième album. waaw. Mhm. Ah. d' accord nga ñëwaat ci album yi bu ci nekk naka lu tudd. waaw euh, depuis kañ nga génne. waaw mhm. bi bi ma njëkk a génne maa ngi tudd Alaaji Bara. Mhm. boobu maa ngi ko génne 2007. waaw bis toog maa ngi tudd Serigne Saliou boobu maa ngi ko génne 2009. bi ma mujjee génne mooy nattu. mooy nattoo di Kër waaw yow bi nga mujjee génne muy nattu. Euh, ñu gis ni yow ci sa trois album yi nga génne yooyu yëpp. benn clip nga jotee am. waaw lan moo waral retard boobu mu sax la. wax waral loolu mooy mooy manque de moyen. voilà waaw ak ñu jàppale ba tax ñun ñu mën a def li ñu bëgg a def pour mu fees. Mhm. waaw loolu moo ko waral. Mhm. léegi yow jamono ñu toll. Mhm. gis nañ ni que Sénégal su su su su koor jotee si la ñuy gën a jox ak euh, ñi nga xamante ne ñooy way ci diini bi. waaw léegi yow ban jàngat nga nga def ci loolu. waaw waaw loolu moom man moom si yow si li ma si mën a wax bëri na ndax yow bu koor jotee la ñuy wane ne ñun ñi ay julli lañ koor bu jotee rek lañ koy gën a fesal daal ñoo xam ne ñun ñi ay jullit lañ su weesoo tamit weesu na dañu ko ne teg li ñoom teg waaw ñu fàtte gars yi tuuti waaw waaw te loolu tamit pour man lii maanaam yow lu war di wéy la lu war di wéy saa su ne ni ñuy fesale sayer bi sayer bi ni ñu koy fesale ñu fesale ko baatin léegi yow lan moo waral yow sa sa ñetti album band benn bi nga tuddee ko turu sëriñ bi si topp tam naka noonu muy sëriñ Baara bi ak sëriñ Saali bu mujj bi nga tuddee ko natt lan moo tax loolu natt bi li ma si wax moo tax ma tuddee ko natt lan nga ci wax voilà ndax maa ngi si wax jaar jaar yonent yi ak saxaaba yi ni doon rey mhm. ak métti yi ñu doon daj waaw waaw yow ba tax yow mën a doon soo ko dégloo rek yow ak loo mën a daj ak lu mu métti yow boo xoolee ñooñ dangay ngay waaw bu mën a dal moo tax ñu tuddee ko natt. d'accord dañuy comme ni koy woowee. Ah. Euh, ñoom dañuy def ay clip. waaw ah. gis ñaari artistes yoo xam ne mbalaxmaan wala rappeur ñu def featuring ku nekk kii way invité morom yéen ci zikarkat yi est-ce que loolu dinay faral di am est-ce yow tamit yaa ngi bàyyi xel ci loolu ndax bëgg nga si sa benn album nga invité ci sa morom bu zikarkat. ngeen hmm. way ko yéen ñaar. waaw loolu moom man maa ngi si xalaat bu baax a baax a baax. waaw mi ngi si xalaat defaguma ko nag mais nag waaw loolu moom yow mi ngi sama xalaat waaw mi ngi sama xalaat loolu moom man yow comme man a yow si nu la ko mën a waxee maanaam lu ma yàgg xalaat la sax lu ma bëgg la fi ñu toll nii sax parce que am na benn morceau boo xam ne ngi ko préparé boo xam ne xam nga maa ngi si bëgg invité samay morom sikarkat waaw pour ñoom ñëpp ñu ñëw fees si après ñu def ko image mu génn si télé bi sa référence en matière ci diine waaw Assane Assane Mbaye waaw Assane Mbaye waaw. moom ngay kii lu bëri. waaw moom moom moom waaw sama référence hmm. la waaw. moom lu muy way yéen a bokk li ngeen di way wala. waaw. d'accord yow ñu bokk si si si kari nga yam wala da ngay jàngale ay xasida ci sa biir way. waaw man damay jàng xas damay jàng olofal. waaw damay sikar. kon mun nañ xam say objectif. li ma bëgg a def boole ak sama liggéey tamit mm. ci ñaari fan yëpp benn bañ ma yàqal dara daal mm-hmm. waaw waaw loolu moom yow lu ma bëgg la daal. d' accord sànq si biir waxtaan yaa ngi may xamal ni que chef de chef de chantier nga en en de maçonnerie. waaw maçonnerie. waaw léegi yow sa liggéey boobu ñu xam nañ ni liggéey maçon yomb. Hmm. naka nga koy mun booleeg ak say activité jàng yeeg yi ngay war a dem parce que xam nañ ni si bëri guddi gi la. te liggéey maçon bëccëg bi la. Hmm. noo leen di mun a booleel. boolee man maa xam ne may tërali samay programme parce que léegi man bu fekkee jour ordinaire. dama hmm. dem dama ma si dem. voilà waaw duma jël programme bu war fanan duma jël programme bu may guddel parce que tamit manam yow sama walu liggéey ñu ne sama ginaaw dafa bari voilà ta ben yow so kenn ku ci mëna doon yow bo xéere ñom ñep dañuy taxaw di la xaar waaw mo lo motax man yow lu ci ëpp par samedi rek lay jël programme samedi dimanche ca lundi ma xëy liggéey waaw. liggéey liggéey zikkarkat dox na wala dox na non man mom defuma ko pour métier déedéet dama ko def pour yow ya lo xamne man dama ko bëgg waaw. parce bu fekkoon loolu rek kon man damay teg fële sama métier dem ma topp wooy bi déedéet voilà dafa nekk lu ma war a dund xam nga waaw moom moom bu ma ko métier déedéet sama liggéey dem liggéey wàcc ma war a dem dem jandi ñëw dem liggéey waaw. man moom moom li ma leen di mooy ñu séntu ñu gëstu si gargaar yi ak ñeneen ñu melni ne ñoom xam ak ñi tuddu yàlla muy ci wàllu diine yëpp daal nañ leen geesu te xam ne maanaam saayir bi nu mu amee baatim tamit waaw dafa war a fees daal ci lépp voilà parce que fi ñu toll ay ndaw rek ñooy taxaw di tuddu yàlla xam nga di fanaan ci ay baas nekk si lu neex suñu borom kon maanaam ñoom ñëpp war nañ mën a geesu ñu geesu ñu daal pour jàppale ñu ñun ñëpp waaw loolu daal moom waaw loolu amul lu may wax daal. waaw jërëjëf Fadi jërëjëf sant nañ bu wér a wér jërëjëf يا مصطفى رسول الله يا الله يا رسول الله يا مصطفى رسول الله يا الله فيك ما يفاتو di waxar baax yi ma xam ci moom ndax yàlla may ma ay maqam ya law delul ma wax la yow falera mustafa ga solo siasi man min banni adunan ya law garabi dandan wa khasim jana ya di wax njay aliyak doj ya naan yàllaaw yàllaaw ba leer buusu denku ko a xaysara ba saawaa réew ma yàllaaw ko addi ak leetar tanaan ko denoo bëggoon nga doon jaar askan wi yàllaaw yaa mutago bay bakero abdul manaakibu woon mu denk ko denk bes ba mu fatu yàllaaw ya ma nga ko bul denchu bintul abdulillahi fo ma bintul abibullah yàllaaw ya kero la sibra dem makka pour armal fa ak umra ñaan fay soxna yàllaaw mu doomi baayam yépp jonn na mes mu taalibey mag joyor seen giir ga yàllaahu mu taalibey mag ja moo wax gaaña ñépp ku yàlla jiital bu ko jiitu yàllaahu yeneen du ànd ak muhammad rasulullahi du bel beli far ku soppu njool Makka doo dem naari yàlla Mustafa Mustafa Mustafa rasulullah yàllaaw mës na di dox ci àll bi di dem ba yem ci ab kewel ñu daal di ko yeew dem bay ba romb kewel gaa kewel gaa nga naan ko ee Muhammad rasulullah dama bëggoon nga xettali ma ma dem nampali samay doom ñëwaat Mustafa yaa nabi nga kewel gi ndax danga maa xam kewel gi ko xam la yaay Mustafa Rasulullah ya ma nga naan dama bëggoon nga xettali ma ma dem pali samay dom ñewat rëbbkat ba ma jàpp yow ma fii ay Mustapha dama bëggoon nga xettali lima ma dem nampali sama doom ñëwaat Mustapha yow wi kewel ga mu dem kewel ga ngay daw ba ca doom ya doom yaa nga koy gàttandu tanaan ko yaay boy foo nekkoon